saalihu xëy nga di sëñ tuuba sa kër dana xëy di dem bi njaareem ja nit ñeeg jur gi ànd di riir saalihu xëy nga di sëñ tuuba sa kër dana xëy di dem bi njaareem ja nit ñeeg jur gi ànd di riir mboolem mag ak ndaw kuréel yéppay dagaan si ci yow bii xaaj dafay fóot si bii day naan si póot ma ñu tuur jullit jibar yéefar ak ñépp a ngi ñëw te moo nakat wàlli yoo njuumaa ngi waaxu ci biir ginnaaw bi nga xamee ne sëñ tubaa mooy waajuram loola lu ñëpp xam na loo xam ne soxlaatu di guddali wax sëñ tubaa moom doy na waajuram bu jigéen wii di soxna Fat Jaxate itam ku ñu xamu askanam la sëriñ bi sëriñ Saaliwu ci tànnu sunu borom sëriñ bi dañu wax ni dafa waxoon ni dafa soxla ay njaboot yoo xamante ni seeni maanaam naka jekk buñ leen doon topp ba juróom-ñaareelu maam dañuy jàng alxuraan doon ñu mokk alxuraan ba noppi di bay di dunde di dunde seen ñax soxna Faati Jaxate soxna Faati Jaxate suñ Modou Astu suñ Modou Astu Jaxate mooy way juróom soxna Jeng Silla mooy way juróom jigéen kon moom Jaxate la sant ci wetu baayam wetu yaayam yaayam sant silla silla silla yaayam ak sëñ Mañaaw silla moom ngay dégg ñoo bokk ndaay ak baay ñaare sunu borom mbir mu mu bëgg mu nekk fonk ko balaa ñëw dina ko utal ay wàccaay ay sabab yu ko indi mbir mu nekk ci lañ ko tànnale soxna Faati Jaxate ak soxna Mariama Jaxate ci la ko sëñ borom dëru tànne ba andi leen te bi mu koy sàkkul boppam dafa wax ne boromam moo ko jox tegtal ci jëmu jooju. mel ni kon tànn tànn tànn tànn ci booy dugg ci kër tànn boobu ngay tànn ka ngay tànn dana indi ak tànn ci njaboot yi nga xamante ne moo ci génn. sëñ bi moo ko taamu woon si Ahmadul Xadim ma digaloon maam Thierno ngir mu dem ci kër néeg boo xam ne dañuy dund seen ñaq xaafisul euh, Quraan loolee nag bi mu ñëwee mm, waxtaan ci ñu ci war a ñu ci war a waxtaan ñu xamal ko ne ko foofu loola am na fa muy Meedu googu moo moom dem jëli ko moom soxna si ak yeneen mbokkam yi fa nekkoon mm, indi leen ci kër soxna Faat Jaxate moomu ñuy wax euh, nitug yàlla la ku bàyyi ko ci askan woo xam ne. xaj na leeral gi lépp lépp dana gudd lool waaye ak dikkam ci kër sëriñ bi sëriñ bee ko sàkkul boppam. man sëñ salu kon suñu doon dafa baax bokk ci njaboot gu tànn koo xamante ne bu dee ci wàllu ndeyam képp ni naka jekk dañ daan mokkal alxuraan naka jekk dañ daan bay di dunde juróom-ñaari maamam yooyu boo xoolee moom soxna Fat Jaxate moomu ku nekk xam na ne sëñ Modou Asta Jaxate baayam sëñ Modou Asta Jaxate Masata Bintu Dun Jaxate mooy baayam masata binta dun moom yi sax moom la tudde woon taawam boobu di sëñ am satu jaxate sëñ am satu jaxate baatub am satu gi sëñ tubaa ko tudde waaye masata binta dun mi jur baayam la ko baayam tudde masata binta dun moodu moodu gala jaane moo ko jur moodu gala jaane baaba di ko xari njaay moo ko jur baaba di ko xari njaay nag jaxate la sant alasaan kumba moo ko jur lamin yoro jaxatee ko jur Moussa Moussa Farima Jaxate ko jur Moussa Farima Jaxate Omar Kaba Jaxate ko jur Omar Kaba Jaxate moom mu nag deesul romb xañ ne lu ko gën a sori ci ak Jaxate ndax Jaxate Kaba gi ngeen di dégg Kaba googu ci turam woowu la bàyyi ko kon juróom-ñaari maamam yi sëriñ bi ne woon dañuy wattu alxuraan ñoo ngi nii ñoom ñëpp ay xaafis lañ ay gor lañ. day mel ne tànn googu rek tànn googu nga xamante ne suñu tànn tànnal na ko ay wayjur moo tax mu tànn moom ci jëm bopp loolu moo indi tànn gi ak ganeem adduna itam ci njaareem la niñ ko baaxoo nettalee guddik ajuma la ajuma ci guddi euh, alxames ji guddi ba ajuma ca guddi googee la gane adduna bi ñu ñëwee wax ko na ko soxna Faati am na gan laaju leen ndax góor la wala jigéen la te loolu moo daan jiitu ci ab laaj kuñ ne soxna si am na gan war ngaa laaj góor la wala jigéen la waaye xam gi mu xam ne kam ñaanoon yàlla mooy ñëw te te mooy sëriñ Saliou moo tax xam naa mu tàyyee laaj góor la wala jigéen la mu jël loxoom bu tedd booba mbàkkeem bindi ca suuf asaaliya ciy mbàkkeem muhammadul amin dem jël xalimaam bindi ca ay bayit wér jox ko ab xaalana bi fadli saaliha باغ لنا جاد بي ساليا أبقى سمسا في سماء دره يسقل منه وجهه كاليا أبقى مملا له هديا مباركا مساء فاليا sëñ Mat Lamin Jóob ñaan yam ko ñaanal gudd fa na ci gën a fes abqaa lana bi fadlihi saaliha baaxin lanaa jaadi bihi saaliha abqaahu samsan fi sama dëhrihi yasxulu minhu wajhul kaaliha abqaahu mukmilan lahu hadiyahu mubaarakan mu saxaxan faaliha abqaahu goo dégg rek li mu koy ñaanal mooy yow yàlla saxal ko fi saxal ko fi kon la sëñ tubaa bëggoon muy ñu ñaanal ko ko rek mu yàgg fi sëñ tubaa santaane wu ci woon leneen ñaar la ci santane mooy nañ ko ci santal yàlla te ñaanal ko mu yàgg fi saaliha saalixa moom la tuddoon moom la ko sëñ bi tudde as saaliha hmm? xam nga loolu fi ne bari ñu def ne yonte yàlla saalih la ko tudde waaye yonte yàlla saalih turam amul amul alif ak lam kon as saaliha baatub as saaliha boobu nag li mu bëgg a wax mooy mu mu mu bi mu ko tuddee mu ne allasi yu kammilul amal mooy kii mottali li ma bëggoon wuutewul ak la sëñ Moussa Ka doon wax naan mboolem ñu doon saalihiin ci sowwu jant ak feneen yàlla na na saalihu di seen njant bitim tim waa xarnu bi kii mottali projet yi nga xam ne amoon naa yéene àggale ko moo tax kon loolu da ngay yu bare bari yoo xam ne yu ko waajaloon la moom dañ ko daan ñaanal mu yàgg fi rek ak mu wér waaye ñim mu bokkaloon Sëñ Tuubaa ñëpp xam nañ ne xamoon nañ ne moo leen fi moo leen fi mujj ndax ay doom moo fi mujj nekk mujj nekk xalifa Sëñ Tuubaa ci ay doom yu bare bare bari itam yi mu doon sëmb àgg ci loxoom kon kooku nañ ko waajaloon ngir liggéey ko bayit woowu ma wax bari na fu mu ko tuddaat ci xasida waaye fu ko tuddee noonu la koy waxee wala bu ko bu waxee ci beneen formule manante bi la ilmi sahihi wal amal as-saalihi allasi amal ba tey ma moo tax kon yéeneem lool ay bi la ma sa nekk maanaam njaareem la ma sa nekk ci kër soxna Faati googu ba muy nekk gone wax nañ ne sëñ bi daan na yónnee lu bari ci soxna Faati di ko wax ne ko nañ ko indi mu ñaanal ko yenn saay dañ ko daan indi mu téye ko lu yàgg yenn saa day ñëwit ci ak yàkkamti mu ñaanal ko mu delluwaat soxna Faati daan na ko indi daan na ko jax ñeneen itam ñu di ko indi sëriñ bi it bëggoon na ko lool sëñ bu mag bi ba fu ko mas a gis day dox gàttandu ji ko sëñ Saaliw itam fu sëriñ bi mas dox ut si ko day daw uti ko bu egsee day day day day wadd noonu gone baaxoo def ci kaw waajuram xam-xam bu laq ay njariñ xam nga ko wax ju am njariñ wax nga ko jëf ju am njariñ jëf nga ko yiw wayaa ko moom xam-xam ay njariñ xam nga ko wax njariñ wax nga ko jëf ju njariñ jëf nga ko yiw wayaa ko moom sëriñ bee ko dalal boppam ci njariñ ci alibe jooju nga xam ne yàgg na cee dalal mm, ay moroomam. waaw wàllum njàng mi itam ni mu tolloo ci jàng alxuraan xam nga moom lañuy ñuy njëkk a jàng doo jàng li ñuy wax science islamique alxuraan jooju bi ci tolloo ci jàng ko xam nga maanaam am mën na ay nijaayam yoo xam ne ñoom ñëpp ay xofaas lañ ñu mokkal alxuraan waaye nijaay yooyu suñ am satu jaxate moo ci mag. daa di woo sëñ am satu jaxate boole koog sëñ Chouaib bu muy rakkam. jox leen ko ah ba mu leen koy joxit wax ji siw na yàgg nañ ko nettali dana dana ko baa jàppoo ne li ngay seen nijaay tax ma jox la ko mu ne déedéet mu ne ko ah man de baaxuma jur di jox ay nijaay ki bàyyi dafa am lu ma def ci yow bëgg nga defal ma ko ci ñoom. bi ñu waxtu alxuraan ba noppi fekk sëñ bi moom at moomu soriwut ak mu fi daal ak ak sëñ bi soriwul waaye fi sëñ bi jógee sëñ Modou Moustapha moo leen jël en charge. xam ngeen ne sëñ Abdou Lahad sax moom ab kaamilam egg na ci nekkuk sëñ Touba waaye ginnaaw rakkam yaa ngi bind kaamil te noppeeguñ sëñ am satu dana ko wan da ngay bàyyi ba seeni kaamil egg ngeen defandoo ko wenn yoon yóbbandoo ko sëñ bi diir bi ñi sam ñoom sëñ Saliou di bind kaamil ci la sëñ bu mag bi wuy ji boromam ñu indi ko Touba ba seeni kaamil eggee sëñ Modou Moustapha lañ ko jox. ñoom ñëpp dañoo ñëw ñu nekk ak sëñ Modou mooy waa kër sëñ bi góor ñoo jigéen ñi ñiy tolloon ci jàng mu jël leen yóbbu leen kenn ku ne foo jàng ci waaju la romb mu cëggul waaju la ñàkk amagul ku duggagul it demagul man dugg naa faw ma dem waaju la réere sànku na waaju la noonu alku na ku yeexa si réccu na ndax ña ko raw ñooy ëpp ndam. li tax nit ñi sopp ko laa yow li tax nit ñi sopp ko xam nga nit soo ko joxee sa bopp rek mu jox la boppam Serigne Saliou nag dafa joxoon boppam nit ñi dafa joxoon boppam nit ñi moo tax nit ñi itam jox ko seen bopp am na benn bis euh, gouverneur dafaa ñëw yandu fa ba ngoon euh, gis ko bi mu ko bi mu ko yëgee ne demal woo ko demal. nga woo góornóor ne ko mu ñëw ma dem woo ko bi mu egsee sëñ bi ne ko jox ko ab toogu ne ko toogal góornóor daal di ne baax na daal di toog suuf sëñ bi daal di woo ñi fa nekkoon ci kër gi ne leen euh, kilifa gii de dañ ne ma fi lay yandu te yëguma ko te loolu de wërta am su fi egsee rek war ngeen war ngeen war ngeen ma koo yëgal ndax moom de ak wooye fa ma tax muy ñëw di ma seet si waaye de su toogoon fa mu toog woolu ma it wuy ko képp laay def Eh, su góornóor su toogoon fa mu toog woo it wuy ji ko dong laay def dafay góornóor lu ko naqari woon lépp xolam daal di seddu mu daal di jàpp ci sëñ bi jàppin boo xamante ne bi lu mu doon def ci ci ci ci ci ngóor a keroog yokk na ko yow mbàkke koo xont du yooy ku nàmp say ndigal du jooy kuy rëbbi ngëb it du sooy fallahu awlaakal karam xeej a kaseen yow du sa mbir ndaxte jagal rekk la ñor siggil nga mboolem ñi nga yar ku la liggéeyalul du am. wax nañ ne Côte d'Ivoire demoon na fa waaye li ma ci desee leer xañ na ñi boroom xam-xam yi dinañ ko mën a leeral ndax dafa njëkk muy samp daara wala ci njël wala ci ginnaaw gi la waaye daal wax nañ ni yitte ji ko fa yóbbu woon moom moo doon xilmu juxraaf bii mu doon jàng muy géographie bi mu am lu mu ci déggoon ci waa Côte d'Ivoire. loolu la doon wérlu ji si ñoom. waaw moom nag def jëmmi sëñ moom ginnaaw bu mu jàngee ba noppi xam nga lu mel ni wàllu euh, géographie ak xam-xam yu bare bëri yu mu xam loolu moom damaa jàpp ne walante bopp mokk ko may waaye doon sax bokkutoon ci matière yi daan jàng ci réew mi te it xam naa ne am na ci xam-xam bu yaatoo yaatoo yaatoo ci xam-xam yu bare bëri nag yoo xam ne ay expérience la yoo xamante ni lu xar baax la sax nag. waaw dimension xam-xamam de liñ ci dañ ciy xayma rek dañ ciy ndax. Euh, takk gi dana jafe lool ci ku mel ne nun ndax dana mel ne ku yam ak moom wala ku ko sut moo ko war a jox sahaada waaye xam-xamam moom lam xam lépp moom neexuta neexuta xam moom rek moo ko xam waaye en daal xam naa ne lépp lu ñu war a xam daal xam na ko ci diine ak sax ci xam-xami àdduna am na benn jamono ma gis sëñ Moussa am sëñ Abdou Khadir ñëw ci sëñ bi euh, di ko gëstu ci fànn googu fànn fànn géographie Euh, foofu daal dikk dégg sëñ bi ni ni ni ko Istanbul bu ñu ko waxee bool lay teg ni ko bool mooy Madina ci laa ko tërki lu ci ëpp ñaar lu euh, lu ko ci suñu saa laaj boobu dafa yor lu mel ne ab ordinateur nii di di di ko laaj waaye lu mu ko laaj ko foofu diggante boobu nangam moo fa am ay dojafe nekk mbaa ndox mbaa nangam géographie da ko xam loolu sax xam ko xam ko jigi day sax xam ne xaman àdduna la xam réew mi xam réew yi àdduna bi yëpp hmm. man bi may tàmbalee tukki boobu mi ngi fi waaye léeg su boo ko tàggoo ne ko damay dem réew sàngam dana ma ci wax loo xam ne léeg ñoo fa nekk sax bu ñu ñoo fa fekk duñ ko xam waaw ay xam-xam yoo xam ne euh, nga xam ne kon daal xamal na xamal na lu bare bare bare daal. jàpp nañ ne lislaam jii ñu nekk bu ñu doon tànn fukki nit ñi ëpp xam-xam xam-xam boo xam ne ànd na ak ay sartam ci lañ koy boole. sartee mooy xam-xam boo xam ne danga nga koo dégg nañ ko war a déggee wattu ko ci sab xol di ko jëfee nañ ko santaanee ba mu may la résultat yi xam-xam damay nit xam-xam boobu moom buñ koy ut ci lislaam buñ dee ut fukk danañ ko ci boole. am na expérience yoo xamante ni lu xar baax la ndax benn bis damaa jógee ci tool yi ñëw mu ne ma gerte dina am fu mu toll foo xam ni euh, dana mën a amaat fukki fan yoo xam ne sa dégg na diis waaye fukki fan yooyu bu xasee mat nag. day tàmbali wàññi ko ba mën naa wàññi ko wàññi ko ba àgg ci saako bu ne wàññi ko ñaari kilo daal di ne loolu loolu dëgg ak ma si dégg mu loolu mu ba mu ba mu seen ak gooñ ma la ci lu leer nan la ma ko waxee. sax am na téere boo xam ne bi ko soxlaa nit ko wax ne ko lii de boo demee ci réewum Saalum am na dëkk boo xam ne ku ñuy wax diw am na ko fa waaye daa jaraloon sëriñ bi muy yéege ko wàcc di dox ba egg ci dëkk ba laaj ko waa ji mu ne ko am naa téere bi mu ne ko dama dama koo soxla moo ma fi indi woon waaye dina ko téere baa ngi fi de waaye mënu fee jóge ñaar rek kay mën a am nga toog fi jàng ko ba mokkal ko yóbbu ko wala nga bind ko yóbbaale ko sëriñ bi it bi mu ginnaaw mu xam ne kuñ yilif la mënut a yàgg àll mu ne kon na ko bind yóbbu ko waaye nee na sallaa de ba mu ko bëggee bind am na ci loo xam ne ci der la ko bind am na loo xam ne ci bant la ko bind am na loo xam ne ci eh, ndax jafe goo xam ne rek ay bindukaay jafoon na ko kayit kenn mënu ko woon am fenn dajalaal ko muy téere boo xam ne bi muy ñëw daanaka ci saag la ko def ndax bari am na benn téere boo xam ne dafa maa digaloon ne ma bind ko kon yi di ko jàng waaye turu téere ba euh, xam naa ne laaj naa ko ñu bari ci jàngalekat yi ci Tuubaa xamuñu ko hmm? te moom da ko mokkaloon lii fi daa mat comme yaa xor ba si salami baraaxatun tastaxi lu dama fi alami defe naa la moom ñu gëstu ko boobu ñu xamuñu turu téere bi te téere ba da ko mokkaloon loolu mooy tekk ne kon lim xaman sax kon ni nga ko laajee naan dimension bi bari ñun xamuñu sax li nga xa xatu xam-xam yaatu ak expérience boo xamante ni xam naa doggu boppam ak walante boppam moo ko may waaye du sax lu ñu daan jàng fii ci réew mi. 1934 ci ñaar fukki at ak benn di ndaw lu ndawe lu ndawe ndawe fii dal sede leen ci yàlla ne bi mu fi toll mbooleem lu nit ma mën a war a xam ci diggante asamaan ak suuf xam na ko xam-xamu saayir nag laa waxuma xam-xamu batin ndax ginnaaw bi mu sampee daara ba bi mu fi bàyyi ko musta takk xëy suba ne day xam la ju beneen masala bu bokkut ak la mu xamoon. am na téere gën a mag ci jàngalekat yi xamuñu ko kon sa xam-xam neexut a takk. sëriñ bi yeesal lislaam ji baaxal pas-pas yi dundal suuf see fexeel ko am tey woon a ngir boole ñëpp faj aajo yëpp li andi xel ko ku bëgg a dëkk tey jii ci ay mbég. dekkee ci ëllëg na wuy xel koom ku bëgg a doon ñay làq ndam ak way ba faw nay xëy liggéey ca xel koom bu masaan nekk xel koom ci fani daayira yi ci fan yi ñuy siyaare daayira yi di ko fa euh, fekk si daf daan jóge ci daara yu sori yi di ñëw di ñëw di jege si tali bi ngir daf daan wax ne bu nekkee ci daara yi nga xam ne dañoo sori tali bi nit ñi fay jéem a ñëw seeni oto di aw ci suuf si di di ngiro mbaa ñu yàqu da dama leen di ameel àq ndax ginnaaw maa leen maa leen tax a jóg man maa waroon a nekk foo xamante ni dana dana yomb ñu fekk ma fa waaye waaye man damaa waroon ñëw Tuubaa waaye nag bi mu yëgee bi mu demee ba xam ne nit ñi fekk ko xel koom dañ koy bànneexoo itam euh, mu di leen di dimbale ca loola waaye teewul mu ne day ñëw ci wetu tali bi ngir gis ko ak egg ci moom jàppandi. loo loo loo yooyu yëpp ay liin la yoo xam ne da kay tëral ngir euh, jaxasoom ak nit ñi ak duggante ak nit ñi gën a gën a gën a jàppandi gën a am solo ci moom. benn bis toog na ma loolu it nii noonu la toog moom di ko wax ne man de dama la lool ci coono yi karan karan yi mu ma sala yërmaane ju ngeen am ci am naa ju ko ëpp ci nit ñi daal di ma wax xalaat mooy xam naa ne fañ sabu bu ma nee ni ñëpp génn bu ñu génnee ma seen dañu ci taatu seng bi dama leen di yërëm ba sama ronxo ngi bëgg a tur ndax wóor na fa jógee na mu soree ak lañ daj ngir agsi fii te Sëñ Tuubaa képp jaral leen ko wóor na ma lu mu leen jaral war maa jaral mooy mooy xol buy dund la yoroon daal xol buy dund nga xam boo waree yërmaan da nga yërëme boo waree jooy jooy loolu nag xol buy dund am na xol yoo xam ne nag dañoo dund ci boppam boo leen du boo leen dumoo duñ jooy fi dund am yëg yu war a jooy ni loolu xol buy dund lay teg mbirum suñu borom dekkal tarbiya xadim jox na la mbóot yoo yaaki koom ba koo defar muy ngën ji doom bëgg ni baayam yaaki maam waaju la jox léppam bu wér raw na rawal léppam bu wér gaalug njariñ ga yaa ko yor yaa koy dawal ñëw leen nu dem koo musa yar du dem kaso te day defar mel ni puso du ñàkk jom du jaxasoo ak waaju fàtte ëllëgëm kon ak sàkkum lépp xam-xam ci diggante bi la 1934 nag ci la dugg ci liggéey bii ko sëñ Tuubaa batale woon teel cee dugg lool néew ci doole lool wéet ci lool waaye nag gëm yàlla ak wóolu sëñ Tuubaa moom xëccuwu ko kenn ba jëmmi sëñ Tuubaa ci boppam rek loolu la doon jàngale itte la doon jàngale itte nag bu ñu waxee mooy dangay ngay xool li gën a nga aj fa sa bëgg-bëgg ba noppi nag ni ñoo ket nag fas yéene mu taxaw jëmmi sëñ bi loolu la sëñ mag bi loolu la jàngale woon ñoom ñu ne ko dégg rek dañoo gën a dégg nit ñi sëñ bi moo tax mu doxee doxee woowu sëñ bi sëñ Saliou naka jekk xam nga naka jekk rek nituk euh, yëngutu la day yëngutu mësta euh, jàpp ni wàccandiku lu ñu war a def mos si jàpp wàccandiku bi muy nawet lu mel sayel gii nawet la boo xam ne diirum noor bépp mu ngi wër gerte te fanweeri kilo la bëggoon waaye mënu ko am ci réew mi te sëñ tubaay bàyyam jamono bi it fekk na sëñ tubaa wan ko ginnaaw ay at ndeyam ju baax ji rek la fi nekkal ak ay nijaayam doon nuwul ci sëñ tubaa benn dërëm doon ci benn taalibe doon ci benn mètre suuf bi muy commencé à zéro la commencé ak laxasaay gu dëgër dugub bi suuna ak làkkum njàm bi ñaari làkki njàm bi ci la tàmbalee ab liggéeyam ci 1934. lu mel ni xel koom bañ fay dem ak ndaan feefe la bu fu dara néewul la léegi diir bi ko taxawal lu mat nangi mu junni ni dafa dund mu am courant am ndox am tëli am ay fajukaay muy centre de santé loolu loolu maanaam maanaam la ci itti ju kawe kawe joo ni day tekk ni itti nit daal lu ne war naa a nekk waaye nag ci kaw sa itti nag lu ne war naa mën a nekk waaye ci kaw ni itti yi nit ki toll toll bi fi sëñ Fallou toogee xalifa nag moo ko jox ndigal ne ko na ut daara joo xam ne bu fa xëyee mën a julli si ajjuma mu wax ko sëñ Abdou Lahad sëñ Abdou jàppale ko si ba ni mu amee njàppandal googi daanaka daal manes naa wax ne ay daaraam noonu la toftaloo ndax boo ngeen xoolee tund wu mu dugg rek bari na fay daara muy tund jawaas wi muy tund njàppandal wi loolu nag la muy teg la mooy jikko ji rafet jikko jim daan woon ay dëkkandoom moo tax kenn doyal ci moom dëkkandoo yi nga xam ne sëriñ bi daana dëkkandoo ñoom ñaare bu sëriñ bi ak seegul ci ñoom buñ ko dee dégg te ak seegul wala ñenn ñi di leen jotal seeni xibaar dañuy jàpp ne sëriñ bi su egsee da leen di xatal wala da leen di gàllankoor wala day am lu leen di yàqal waaye bi sëriñ bi egsee ñoom seen dim bopp gisal nañ seen bopp njariñ li nga xam ne sëriñ bi jariñ na leen ko ci saayir waxuma la nag maanaam ci baatin li muy wane mooy yërmande du bëgg kenn xiif du bëgg kenn tumuraankee jamono bu nekk tabax ngay daara jubal mbooloo te kenn déggagul ngay wote leen akafal kuy wax lu jëm ci bakkanam gone yi xam nañ sa ndimbal liberté yaa leen ko wutal sag ñàkk jot noo ko waral defar nga maam ak ay sëtam mat nga ñépp ci lu dul dooree ka yeew kenn xulul ku nekk ngi yaa ko gënal bokkam ya ak ay waajuram sëriñ bi dafa wax ne xafistuma siina xanit dafatiri fala takun xan xidmati fatiri dafa wax ne sëñ mag bi dafa wax ne làq naa loo xam ne ëpp nañu ko bind ci étere kon boo muy liggéey bu ci sonn daa li ma dégg daal di wax nag ni donte sëñu donte donte yellowuñ ko it sañ nañ cee barkeelu ci laaj ay ndaw yoo xam ne dañ leen yóbbu ci suñu daara xel kom ci yar leen fa jàngale fa sëñ bi ci mujjam lépp dégg naa ko mu wax ci mu ñëw di daan wax ni ku mas a jox donga dalay wax ni la ku mas a jox doom dalay wax ni jàngal ko te yar ko loolu tax nag ñii laaj donga yoo xam dañu leen di jàng yar leen ci suñu daara yi euh, sëñ boo egsee ci moom maanaam bu la sa bu la ba jébbal la sëñ bi rek buy dem gone miinaayu waajuram da ngay gis gone daal di commencé jooy waaye ci saa gis sëriñ bi nax ko façon nax yoo xamante ne bii ñu si bari miin nañ beñam yooyu beñe yu mag yoo xam ne day beñe yoo xam ne bu la ko joxee Euh, day day da nga koy ci nekk di kërëj kërëj kërëj kërëj daanaka ci ngay jaare fàtte sa waajur tey tamit sëñ bi soo ko masaan a jox gone lu mu tabje tabje dana ko sëggal ñaanal ko bind ci ginnaaw gi bind ci bopp bi ñaanal ko def ci yitte ak karkanam bu leer bu belli boo xamante ne bii xale bi suy xool sëñ bi di xool waajuram diggante bu gàtt sëñ bi daal koy gënal waajuram ndax li muy gis ci sëñ bi ci ak cofeel muy ëpp fuuf li muy gis ci waajuram ci ak cofeel lu mu defee nag jooy yu ndaw yooyu nga xam ne xale bi dana ko jooy waajur bi bu waajur demee ñaari fan ñett su fi dil si waatee xale bi dootu ko bëgg a gis sëñ bi sëñ bee koy gënal ndax sëñ bee koy ëppal njariñul saayir mooy yow li nga ko daan defal am am juróom yi dem jëndi tàngal euh, sëñ moom day daal di làmb kees gi léegi génne pomme génne orange génne euh, yëpp jox ko boole kook jox la boppam lu ko lu mu tuut tuut sëñ bi koy jox boppam am na am na am na amoon na benn xale gan boo xam ne daa daa daa daa ñëw mu mu mu mu mu mu nekk ak sëñ bi mm, ba ba ñuy ba ba si kii mu daal di bëgg naan mu fekk bidon bi sëñ bi daan teg foofu di ci naan mu dem jël pot pot bi sëñ bi daan naane ñëw di xell ci bidon bi bëgg naan am ku ne ku ko tere ne ko eh bàyyil pot boobu sëñ bi ci naan demal ci robinet bi mu ne ko ah lu tax nga naan sëñ bi mooy naan pot bi ñun ñuy dem di naan ci ñu naan naan bi. Euh, sëñ bi ne ko bàyyi ko naan ba mu naan ba noppi mu ne ko waaye pot bi man sama pot soo bëggee naan da ngay wut sa pot bopp nga da ngay wut pot nga di ci naan mu ne ko man sa pot bi ci la ci laay ci ci laay naan sëñ bi xelal ko mu daal di naan ba mu naanee ba pare euh, mu am ay ay ay ay miskit yu ko baayam joxoon mu tegoon ko foofu ci suuf ci suufu lal bi léegi mu xool mu mel ni pot yi mu mel ni mbiskit yi manqué na manqué na ay ay ay paquet mu daal di sëñ bi man damaa tegoon fii sama neuf mbuus miskit waaye mu ñëw fekk fi six yi mel ni trois yi dafa dafa dem sëñ ko ah man de fabuma ko mu ne ko ah en tout cas fii laa ko tegoon de sëñ ko ah man de moom wóor na ma ne fabuma ko nga xam ne maanaam foyu kaf yu neex yooyu ci diggante euh, xale bi ak kii ak sëñ bi nga xam ni ko xale bi ni ko xale bi ni mu ko yabe ba ba di ko laaj ay mbuus miskitam mu ne ko ah man de jëluma ko mu ne ko en tout cas fii laa ko tegoon de mu ne ko ah man de jëluma ko xale bi daal di yër daal di gis ne dafa wadd ci ginnaaw mu ne ko ah garaawul mi ngi nii mu ne ko ah, ok waaw man nga xam ne xeet yooyu nga xam ne day day day nekk ak yow ci ci jàmm ju neex sa kenn gën junni keneen say ndaw a gën mag feneen say mbaar a gën taaxi keneen ku la nangul sangi ñoñam sa waa këray gaayay liggéey te duñu ñistal duñu tooy te bokk sellal bokk seey ci ndigalal xayral xadiim li nga xam ne moom la yàlla taamu woon dëgg bëgg ko loolu moom sëñ Saliou la ko jagleel mooy yaru gone gu am juróom-ñaari at nga fekk ko ci daara na ko loo fi ut mun a dem ngërëmul yàlla loolu lu rëy la juróom-ñaari at loo bëgg ngërëmul yàlla. moom dafa am ñetti éléments yoo xam ne bu ma waxee ñetti éléments wala ñeent yoo xam ne mooy lim daan fóote xol yi. xam nga booy fóot da nga yor saabu yor omo léeg-léeg nga yor yeneen yoo jëm fóotkat yi daal xam nañ xam nañ yooya ne ko noonu xol yi dafa am lu mu koy fóoti loo xam ne maanaam ñeenti jumtukaay yoo xam ne ñoom ñëpp ñoo ko bokk woon ñoom ñëpp foofu xol seen xol yi foofu loolu leen fóoti sëriñ nag dafa mel ne ab yar moo ci ëpp lislaam maanaam dafa mel ni dafa xam valeur doomu nit ñi doo ni rek nangam sangam bii képp la war a mën a nekk bu ko nekkul jaan déedéet dafa indi daal ji indi fi lépp tout indi na fi jàng alxuraan bi indi jàngalekatu xam-xam bi liggéey bi léegi nag bu ko defaa nam daan yara nit ñi nag mooy nañ leen bàyyi ñu nekk ci biir environnement boobu boo fee boo doonul lii doon lee boo doonul lee doon lee waaye perte ma mënti nekk. da ngay jàng alxuraan ba mokkal ko kenn ku ne ci ñoom li mu woon ci yow nga mokkal alxuraan ci mokkul alxuraan rek xëy na waaye moom li mu bëggoon mooy nga mokkal alxuraan muy benn bi ko ñaareel nga jàng xam-xam ba am xam-xam bi ko ñetteel mooy xasaayit yi nga di ko jàng bu baax ndax day fóot xol di ko ma mokkal bi ko ñeenteel mooy tool yi nga di ci liggéey ñeenti éléments yooyu mooy yi nga xam ne moo composé woon lim doon liggéeyaloo ndongo yi di ko di leen ci tërbiya bi ci fóoti seeni xol ndax dafa mel ne ab yaram li mu boole sul ci àdduna yar bu boole loolu nga mokkal alxuraan am xam-xam doon ab saxir benn bokkul alxuraan waaye ab liggéeykat nga doon benn nga doon maanaam daal li nit daal la xam te sun borom bi noonu la bind doomu aadama dafa bind nit nii def ci moom wala yu bëree bëree bëri moo tax boo ko bëggee nërgan nërgan ci benn mbir rek ñoom te lay tekki moo tax tarbiya gi mu doon tëral nii te muy yoonu sëñ Tuubaa bi mu fa indi woon mooy ni jëmmi wala doomu aadama dañuy feeñal nam war a mën a mën a nekk moom benn mu doon ku war a a mokkal alxuraan mbaa mu mbaa mu doon jànkatu xam-xam mbaa mu doon ab liggéeykat bu xarañ ndax xarañ xarañ googu rek lay jàngale ak njàmbaare li nga xam ne mooy xasida yi itam amoon na ay xasida yu sélectionné yoo xam ne sas wi lañ ko daan wooye lu mat fanweeri xasida maa nga ci ak nangam. da daan wax ne jàng yar liggéey. amoon yërmande la koo xam ne eh, loolu sëñ bi wax ne irham moom moo nekkoon ci moom ñëpp la yërëmoon kenn ku nekk jàpp na ne eh, lu war ci yow moo ko war a def. Euh, ndaw ñi xale yi daawul nangu ku dóor ñi ñi daan jàngale toujours daf daf ñu daan tere lu mel noonu ba nga xam sax da nga koy mujj tàmm ba gone yi sax dañuy mujj xawlaayam ndax ñàkk dóor geeg ñàkk waaye loolu lépp dafa ko daan wax ne ne jàngale moog jihaar ñooyam boo dóoree rek euh, ñu koy waxati daw nga. njàng mi ban xeetu jàng la alquranul karim. mi nga xam ne mooy aslul ulum su noppee nag furon yi nga xam ne yëpp bala ñoo yéwén dañ koo jëlee ci alxuraan te mooy xam-xami diine yi ñu jàngal la ko. xam-xam bi tam amoon na li ñuy wax sas wi muy téere boo xam ne moo ko mooy moo ko sélectionné muy mm, téere xam-xam yoo xam ne suñ dëkku taalif. ginnaaw boo wattoo alxuraan euh, li nga xam ne moo di mbindum Serigne Touba itam muy xasida yi. ak téere xam-xam yi itam yëpp ñu boole di la ko defandoo ci yow. yooyu moom itam lu may yaafus yaafus ci daara ji da ko jàng ba xam ko. boo xasee jàmbaar nag jàmbaar rek lañ soxla daanaka mooy taxaw lu taxaw ci àdduna la ko taxaw moo tax daan wax ne gone yi nañ leen di yar ci pas-pas te bañ leen yor ci ak noteel yor ci ak noteel buñ leen yar ci ak noteel ndax noteel li muy yàq moo li muy defar. diir boobu itam ñi ngi koy boole di tàggat sa bakkan bi nga xam ne. wa yuzakkihim da caa bokkoon te mooy taskiyatu nafsi mi ngi lay jàngal mi ngi yar bakkan xam ngeen ne bakkan kenn dara mënu ko yar lu ab liggéey boo xam ne day ànd ak xiif ak tumuranke liggéey bi itam moom itam yaatu la woon ñu fay bay gerte di fa bay dugub tàmbali bi ah, dafa amoon ay mbaam la daan bay xam naa yooyu bari ñu bari fekkiwuñ ko waaye dem na ba mujj mu am muy bàyyi ay nag ba mujj mu ñuy bàyyi ay tracteur waaye moom système bi mu ko daan defee la ko gënoon a jàppandal mooy yërmande ji ak bokk gi mu bokk ak yow coonab li mu lay def loo daan ni ku fi nekk liñ gën a bëgg mooy na boole liggéey bi ak njang mi ak yar bi ku mënta liggéey te nangoo jàng ni ko bàyyi mu liggéey na nga ko bàyyi mu jàng ku nangoo liggéey ni ko bàyyi mu liggéey ku ci nangoot benn bu fi nangoo toog ni ko bàyyi mu toog ku fi nangoo kanu jaaxal mooy waaye ku fi nangoo toog li ma gis moom danañ ko am muy tekki ni maanaam jaww ji rek tarbiya li muy tekk mooy da ngay jaww ji ba mu baax nga dugal fi nit ñi rek bàyyi leen kenn ko ne nga bàyyi ko ci métootam nu mu mënee mu jàll te nam mënee bu jàllee luy amal njariñ adduna mi bi la doon di amal njëriñ société bi day mel ne façon déggin wala amoon ci ak tarbiya liggéey bi lépp la njàngum alxuraan la njàngum xasida ak taxan meeg rood meeg lu ci ne nag ku ne jàpp ne yaa rek te nag matale ko daan misaal nag ak tarbiya ci ni mi ngi mel ni euh, tarbiya yi ñu leen indil yëpp ci la bokk mi ngi mel ni nga bëgg a tàngal rek ci misaal ataay la ko daan misaale wala kafe daal di wax ne ataay boo ko bëggee tàngal boo amee ataay képp ndax amagul nga ataay ñu ngi am nga ataay ak suukar am nga te amoo baraada boo ko def ndax amagul nga ñu ko dee am nga ataay suukar ak baraada amoo ndox am nga ñett yëpp te amoo taal boo ko teg yooyu yëpp bu sottee te amoo kaas yoo ko sotti nga xam ni kon tarbiya bi lu ñu la ci digal rek ca la ngir mooy dañuy dañuy mottalante ñu mottalante façon bu yéeme la daan jàngalee boo xamante ni léegi gone yi dañuy am ci moom ak cofeel am ci moom bëgg ñaar ba dañ ciy yëg seen bopp ci li ñuy def. moom bu lay yar da yar ci dimension yëpp nga ne boo nekk boo noppee lépp da nga koy war a man ndax bu dee xam-xam da ko am bu dee liggéey tàggat na la ci ba nga sawar bu dee xel tam yar na la ci yee la. moo tax ab yaram buñ ko jàngatoon benn par benn dinañ ci gis ay njariñ yoo xam ne. suñ ko nangoon a jëfee Sénégal mooy jiitu ci mbooleem adduna bi ci wàllu yar wàllu liggéey wàllu développement wàllu développement ndax adduna boo amee ay ndaw yu ñu yar buñ nangoo liggéey yaa gën adduna yaa gën adduna ndaw yu ñu yar ñu nangoo liggéey te loolu lépp nag dafa amoon ci biir système bi nga xam ne moom la sëñ Saliou daan yaree. bu fekkoon ne jël nañ ko jël nañ ko comme référence jël ko ni ko war a jëlee état bi dafa waroon jël jëmmi sëñ Saliou ñëpp ci université ko jàngale mooy kan. jàngale mooy kan lan la def lan la yar ñu indi benn benn ci ñim yar sax di gëstu ci ñoom ndax kenn ku ne ñoom sëñ bi la ci gën a mooy jaxasoo naa yow toog ak yow amoo yow jotaay jotaay boo xam ne da ngay jàpp yow sëñ bi li nga seq moom seq ko kenn ci àdduna yaatu ko yàlla mayoon waaw loolu nag léegi état bi buñ bëggoon jàll dëgg-dëgg ci réew te gag nañ gag moom def nañ ko dañ ko def dañoo gag dañoo gag parce que li tubaab yi indi woon lu ci bari jàllut léegi nag fokk ñu dellusiwaat ci suñu bopp des waaye mooy jël jëmmi suñu def ko exemple def ko am njàngale moo xam dañu koy jàngale point par point naa dër gis ak soppiku. ndax suñu ko fàtte rek. moom. ndax ku mu fàttali du too moom. di ko ñaan jaam ñëpp. di ko ñaan xéwal ñu daj ñun jaam ñëpp. akub jaamu yàlla. akub jaamu yàlla. yàlla na yàlla yàlla na yàlla xéwal. yàlla na dimbale. yàlla nu jëriñ. ndimbal lu nu matale ñun ñëpp. ndimbal lu nu matale ñun ñëpp. xasida ak sëñ Touba ji jàng. ci barke xasida ak sëñ Touba ji jàng. rabbi maa yasaluka an qad fajaa jaahi ardal man lillahi qad rajaa دي رب كريم لا شريك له صبري اليوم نور ساعتي عن على محمد صلوات الله أبد عليه به كل به قرأ أدعو إله الذي أمت مواهبه بجملة الخلق ما يختار من برأ أشهده جل أعظم وكرمني تكريم هذه وكل من لغن برئ الرحمن هب لجميع الخلق رحمة من يثني عن السمع من قرآنه قرأ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 saalihu xëy nga di sëñ tuuba sa kër dana xëy di dem bi njaareem ja nit ñeeg jur gi ànd di riir saalihu xëy nga di sëñ tuuba sa kër dana xëy di dem bi njaareem ja nit ñeeg jur gi ànd di riir mboolem mag ak ndaw kuréel yéppay dagaan si ci yow bii xaaj dafay fóot bii day naan si póot ma jullit ji bar yéefar ak naafiq ñépp a ngi ñëw te moo nakat wàlli yoo njuumaa ngi waaxu ci biir